bu ci njëkk bi tamit mais di jégalu tamit téléspectateurs yi man je quarante cinq ans je pense que ku ngeen di tudd nii su ma magee lu ma magee bëriwul c'est-à-dire que man su ma tegaatee beneen quinze ans je suis à cinq su ma su ma taaw il a vingt ans vingt ans jur naa doom bu am vingt ans nekk université moom su waxee awma BFM mais il a raison c'est pas de ma faute man ba may dem États-Unis j'avais 14 ans su ma papa nekkoon ministre ma dem États-Unis jàng États-Unis amul BFM je suis désolé bokkuñu fu ñu jógee bokkuñu fu ñu juddoo moom nag bu muy am 14 ans nekkuloon États-Unis ça c'est clair bon donc je vais pas lui répondre maintenant si lui il croit que Jean-Paul Diaz a mis au monde un fils qui n'a pas fait l'école, je lui laisse le soin, lui, de réfléchir. Mais une chose est claire, le fils de Jean-Paul Diaz n'a pas dit qu'il est inscrit au barreau de Paris. Parce que lui, il n'est pas au barreau de Paris. Ça, c'est clair au moins. Bon. On passe à la deuxième question. Parce que, bëgguma parce que su ma soree ci wax bi dañu ne Barth dafa xamadi te xamadiwul. c' est pas de ma faute man damaa juddu suma papa nekkoon conseiller président Senghor ma màgg gis suma papa nekk ministre député et cetera man suma papa daf ma sandi ci avion ne ma damal Amérique. ba may wàcce États-Unis j'avais même pas 15 ans donc ngay wax ay waxu BFM man BFMuma bakkuma amul loolu États-Unis su ma doom yi amul kenn kou ku nga xam ne def nga BFM parce que ils von aux États-Unis dès qu'ils sont dès qu'ils sont au niveau de la quatrième maintenant man dinaa mere suma bopp wala mere suma ay waajur parce que suma papa daf ma yóbbu États-Unis à l'âge de 14 ans je suis désolé donc euh, ensuite yéen su ngeen di wut liggéey fan lañ leen di laaj yéen BFM yéen BFM ban xeetu diplôme la fan lañ leen di laaj gis que coronavirus bu muy am coronavirus bu muy am mu ngi may fekk Toronto maa ngi doon def benn master à la York University j'ai décidé de m'inscrire encore à IAM pour aller faire un autre master jàng je suis désolé c'est pour les complexés mon père est énarque sorti major de sa promotion ma mère est professeure et a été à la tête d'un lycée, en l'occurrence lycée des jeunes filles. Je viens d'une famille de diplômés, dans laquelle je suis le moins diplômé. Je n'ai pas de complexe de diplôme, parce que, excusez-moi l'expression, on est sur un plateau de télé, je ne suis pas un idiot heureux. maa ngi jégalu nag parce que wax ji xam nga des fois il faut tamit nit ñi xam seen bopp. beneen question bi beneen question bi mooy yaa ngi wax waa ji nee na parce que man waa ji dama ne waxkatu dëgg mooy lu wolof Njaay di ne fenkat mooy ku dul wax dëgg ma ne sàcc la sàcc mooy kuy jël lu mu moomul ma ne escroc la escroc mooy kuy luubal wala kuy jaay lu mu moomul dafa dem tribunal juge bi bu muy reporte procès bi man nekk moon tribunal aw moon benn avocat tribunal juge bi dafa reporter procès bi pour qu'il puisse constituer sa caution parce que dafa naroon fay xaw ma vingt cinq mille xaw ma cinquante mille pour procès mën a am mu wan la ni que kooku du waxkatu dëgg juge bi ne ko tu dañuy reporter pour constituer la caution i di que man maa laajte report de du, procès pour dama ko porter plainte moom ci doyen de juges parce que suma avocat dafa plainte d'abord ci procureur de la république moom balaa muy plainte damaa ko plainte ci procureur de la république mais comme procureur de la république day jaawale république ak APR donc avocat bi ne maintenant ñun dañuy dem ci doyen des juges mais man lu ma namm ci waxtaan bi du mais du waa ji man waa ji taxuma jóg parce que waa ji balaa Macky Sall di falu Sénégal nekk président man mosuma dégg turam te bés bu fi Macky Sall jógee tamit noonu lay fayee c'est ce que j'appelle des accidents de l'histoire man j'existe avant que Macky Sall soit président du Sénégal et inchallah j'existerai après que Macky Sall quitte le pouvoir maa ko liggéeyal suñu bopp ma ñëw rek foofu lay daanalee mhm. lu ma namm ci waxtaan bi mooy président Macky Sall laa bëgg xam est-ce que ci association de malfaiteurs bu nga xam ne ni loolu parce que loolu mooy association de malfaiteurs est-ce que def ci laal am déet est-ce que def ci yëg am déet beneen bi est-ce que ci ñàkk wax dëgg bi est-ce que def ci laal wala est-ce que yëg na ko am déet ci mbiru lu may wooye escroquerie en bande organisée est-ce que président Macky Sall yëg na ko wala est-ce que lan na ci parce que Dakar Dem Dikk suuf jooju fu mu nekk lu ñuy wooye état des droits réels yow mënoo ko bind mënuma ko bind bakk kenn ci ñun fi mënu ko bind état mooy wax parcelle bii diw moo ko moom dañu ne foofu fu Dakar dem dik nekk dañu ne diw mooy état du Sénégal droit réel état du Sénégal la ko moom état du Sénégal du Dakar dem dik donc état du Sénégal yoon mayu ko mu am sañ-sañ di jaay suufam da koy mettre à disposition à travers des permis d'occuper ou a travers des baux ensuite qu'on transforme en titre foncier après mise en valeur yow naka nga mënee jël suuf bu nga xam ne dañu bind état du Sénégal ko moom yow nga ñeneen da nga koy jaay mais waajooju moom Sénégal mi ngi indépendant depuis 1960 balaa dakaar dem dik di am amoon na Sotrac ñaata directeurs généraux ñoo fi jaar kenn mosu fi jaay un mètre carré moom mu bëgg a jaay tout le dépôt de Mermoz xam ngeen fan la bëgg a jëm ak ñun dafa bëgg a jaay dépôt bi yëpp yóbbu ko maintenant ñaajo y a eu combien de directeurs généraux ci dëkk bi bu diriger Sotrac ba tey Dakar Dem Dikk kenn musul jaay un mètre carré moom mu bëgg a ñëw jaay ambassade de Chine jaay APR jaay station essence jaay jaay jaay mais yaay kan ba di jaay da ngay jaay sa moomeel wala nga jaay ndono wala nga jaay sa ñaq soo jaayulee loolu lu ngay jaay da nga ko sàcc te ma may birilaat wax ji fii c'est un escroc c'est un menteur et un voleur maintenant ce qui m'intéresse mooy est-ce que le président Macky Sall a été informé ou est-ce qu'il s'est impliqué dans l'association de malfaiteurs